Faye baa lay ziar. waaw salaamaaleykum ñu ngi lay ziar di la bëggee bu baax a baax Djily Kébé. dafa mel ni bisu mbégte la ci ci yow waaye bisu mbégte la ci mbër yi nga xamante ni yéen a bokk làmb te gis naa fi mbër yu bari. waaw sant yàlla rek. àdduna moom liñ naan koo xamul na koy def ni mu la dafa tax te dégg naa ci ñoom bu baax a baax parce que tamit lii moom dafa am lu muy wane ci àdduna rek que mooy dëkkandoo mooy mbokk te. bu dul lii sax ma ñoom dañ fiy jaarte du ma fi nekk ñuy nemmeeku suma way jur wi du ko xool kon bu na amee gan goo xam ne ganuk lislaam la mooy lu yokk ci lislaam la te ñoom it ay nitu diine waaw di samay nit ñu bokk li nga xamante ne moom la ñuy yëngu ñu teew fi damay kontaan bu baax a baax a baax a baax a baax bég bu baax a baax a baax di wax ni ñoom man awma seen fay parce que nit lii rek la mënoon moroom nitam man kontaan naa ci ñoom bég naa ci ñun ñëpp benn lañ parcelle gépp benn lañ 1 ba 26 dañuy dem nante ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ku fi ñëwul tamit jàpp naa ni maanaam yi tey jamono la rek ak fi dëkk bi toll ak uh, wopp bi nga xamante ne moo dugg ci réew mi te wàccoo gunóog moom ndax xam naa ne bu dul woon moom ñu ci bëree bëree bëri dinañ fi teew waaw mais ku ñëwul it dañu comprendre bu baax a baax xam ne fi réew mi tollu la. léegi Boy Faye fi mu toll nii kilifa la am na soxna am na tout tànk yàlla na xéwal gu yokk fi mu toll nii mbër mi daa mel ni mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi sóoraale ëllëgam mu ngi fonde famille xam ni ëllëgu làmb làmb sport la mais ñu ngi ci sóoraale suñu avenir ëllëg. waaw loolu am na mais jéeli man damay wax ni man ba ma juddoo di góor laa nekk kilifa ndax li tax bi ma juddoo di góor laa nekk kilifa. moom mooy man dama juddi di góor ñu am lu ma nàmmantalee ba pare am ci fu ma meññee moom mooy maanaam dama fekk suma ay grand frère nekk ñoo xamante ne di bay seen waat ci yoon bi man ma juddu rek ne damaa war a am jëm ñëw dimbali leen ci waar wi muy yaay bi ci kër du ma ko seetaan benn yoon fu mu nekk maa ngi ci wetam ba après soxna fekk ñu ci waaw tax fekk ñu ci loo xam ne di góor lañ nekk ay responsable waaw <laughs>